Étant conscient du rôle prépondérant que le gardien de but occupe dans le football moderne, Khalifa Ababakar Fall Di a mis en place le premier centre de formation des gardiens de but en Afrique en 2003. Aujourd'hui, plus de 200 et quelques portiers évoluent au sein de ce centre, situé à Guédiouaï, plus précisément au stade Amadou Barry. Au début, les conditions n'étaient pas du tout favorables, mais grâce à sa détermination, à sa passion dans cette discipline et son expertise, ce grand formateur a réussi à s'imposer et faire rayonner son centre.

c'est un bon gardien mais amul compétition dañu ko doon préparé match amical yi doon joué nii muy joué ay match pour bu duggee mu a am tànk mais dafa ñëw rek jël bi fekk leen li ngeen def am na ñoo xam ne du leen may dara de anciens yi laay gis Si le centre a connu une progression à une vitesse de croisière, c'est grâce à un encadrement technique hors faible en la matière. Le Kotsukan est épaulé dans cette pénible tâche par Oulé et Ali. Stop, tournez La dernière La formation des gardiens de billes nécessite beaucoup de facteurs, selon le coach Aliou. comme dab rek sommes ni ñu centre ni ñu nekkee centre bi gis ngeen ko saa bu ñëwee fii nii bu ñu centre bi li avancé ci centre bi. waaw waaw parce que boo xoolee toujours booy démarrer liggéey da ngay démarrer ci basage bi basage parce que ci la affaire yi ne parce que booy xool liggéey bi gën a am solo moom mooy liggéey bi nga xamante ci xale yi lay jóge quoi moo waral tey ji bi nga ñëwee da nga fi gis ay ay ay ay ay ay U10 U10 U15 U17 U20. yëpp nga fiy gis nii quoi. effectivement parce que loolu dafa lay dafay dafay bokk ci entraînement parce que l' intelligence bi toujours moom mooy xoolal toujours mouvement bi ñu lay wax noonu benn yoon lay expliquer après léegi loolu parce que loolu il faut nga dem ak sa expérience quoi loolu lañ lay njëkk loolu la ñu njëkk def ci yow parce que consigne lañ jox rek benn yoon la ñuy expliquer nga xam fi ñu jëm. voilà loolu c'est très simple ma ma leen di wax ne léegi actuellement parce que fii euh, liggéey rek moo fi nekk parce que centre bi ku xool xam ne dañuy liggéey man daal maa ngi lancer message jeunes yi nga xamante ni yëpp bëgg nañ liggéey comme comme spécifique gardien ñu seere ñëw liggéey parce que fii moom boo fi ñëwee am na liggéey. xam nga te boo ñëwee di nga liggéey di nga ci gis sa bop bon may lancer message ni tous les jeunes yi nga xamante ni actuellement paré nañ pour doon ay gardien inshallah bu ñëwé ci centre bi liggéey. té deux anciens du centre Baykundul gardien de Sonacos et Moustapha Diop portier du Racing Club de Dakar expriment leur satisfaction sur la qualité de la formation du centre. quoi centre mom yaakaar naa ne mën naa see wax ndax ancien laa fi fi liggéey mo fi am amul caaxaan depuis terrain jaaram ba légui ñu ngi fi kon yaakaar naa fa té liggéey ak fulla ak fayda. te gis njëriñ moo tax chaque jour ñu fiy ñëw waaye condition yi xaw na métti tuuti xaw na métti tuuti quoi mais lépp loo gisee liggéey ak gëm-gëm la dañoo gëmoon ne fii dañ fi egsi kon li ñu fi egsi rek mooy suñu gëm-gëm di wax tamit autorité ñu ñëw jàpp si centre bi quoi métti na trop waaw loolu moo am na moom am na wax dëgg fa ne yàlla niveau bu ma egsi fii lépp à cause de centre bi la quoi moo tax fu mu mënti nekk boo nekkee si vacance damay ñëw profité fii nii ñëw ut si dara delluwaat quoi depuis Tëngéej see Ouspa ba Sonacos centre bi li ma si mën a wax moom xam naa du bëri dina bëri parce que je pense que ñu fi jaar ñëpp wax nañu lépp rek yokkute la daal yokkute ak avancement parce que man ci centre bi laa amee club national une mooy Racine club de dagar ci centre bi tamit peut-être ci laa amee tour bi ma am nii tamit ak progression bi ma am yëpp tamit centre bi laa ko amee kon yokkute la daal si gàttal. waaw am na liggéey bu sérieux bu am rigueur bu fi nekk tamit parce que ki initié centre bi tamit moom ñëpp loolu lañ ko xamee ñëpp loolu koy seddeel dafa am rigueur. dafa sérieux kon tamit fii ku fi mën a nekk tamit loolu rek nga fi mën a jëlee tamit de plus. malik et ses deux jeunes U17 complimentent leurs formateur comme leur aînés. parce que tamit yaakaar naa lu mel nii tamit mosu fee am fii ci Sénégal kon bu amee ñun li dafa nekk loo xam ne ñun ñoo moomuñu ko Sénégal gi yëpp ko moom parce que boo xoolee ñi ci jëriñ ñoo bëri championnat Sénégal beeg nawetaan beeg ba ci équipe nationale bi ñëpp a ngi ciy jëriñu kon lii nekkatul suñu yëf ñun dong yëfu. dëkk bi la Sénégal moo ko moom mën nañu père père moo ñu defar parce que man li may wax rek bi gars yi di tuddee seen bopp ay teer sëgën ñi néer kaana moom mu xool bëggal ma boppam tuddee ma Malick Kaana ñu fii ci stade bi ma moom tase nañ fii ci stade bi mu nekk camp yi ma nekk loolu moom mu xool ma bëggal ma tuddee ma Malick Kaana moom laa doon xool di roy di ci moom ma ñëw ci centre bi centre bi daf ci mën lu bëree bare bare bare bare ci góol kon fu ma yegg ci góol tamit c'est grâce à centre bi. waaw depuis ma nekkee booy ah, bi may am bi may am treize ans quoi laa commencé centre bi waaw ah, non bi ma commencé ba léegi maa ngi sant maa ngi sant bu baax a baax a baax parce que métti na trop mais maa ngi sant bu baax nag maa ngi sant yàlla bu baax tey jii maa ngi gis avancement ci entraînement bi bu baax a baax a baax suñu koñ maa fa gënoon a cuune mais bi ma ñëwee fii prise de balle mun ma ko jàpp. dañ may dañ may dóor a bal bal di dal sama kanam fii di néewi sama kanam di néewi ma sant yàlla instant nii bu man nii sax di ma sànni xeer sax dama koy jàpp sant yàlla quoi santaat Berkane bu baax a baax a baax a baax ak coach Aliou ak coach Oulay quoi ngi leen di sant bu baax a baax vraiment ñoo ngi seen taxawaay ci ñoom ci ci ñun quoi waaw. non sant yàlla bu baax a baax a baax tey suma demee bay góolu nawetaan ginnaaw yàlla ak yonente bi suñu coach yi la ko waaw ginnaaw yàlla ak yonent bi suñu coach parce que man xalaat moo woon sax dinaa taxaw ci camp quoi non xalaat moo ko woon vraiment quoi yàlla bu baax nag waaw. Euh, boobu ak léegi yaa huit mois am na huit mois. Hmm. fii nii sama benn grand bu nekk Louga moo fi andi. ah fii bi may ñëw nekk góol moo fi andi woon bëggoon na nekk góol moo ma andi quoi. si si bari na bari na. moo ci sentir bari na wax dëgg fa bi may doog a ñëw mënu moon sax prise bu baax taxaw taxaw jël prise sax amu moon taxawaay boobu noonu xaw ma ko woon quoi mais bu ma ñëwee père père Kaana Aliou Olay Mbaye ma fekk leen fi ñu def lu bari ci man ba tey fu ma taxaw bu ma góoloo ñëpp ne apprécié waaw ba may ñëw nag moom ñuuloon naa trop trop moom ñuuloon naa trop moom xamoon dara mais tey moom ñu sant yàlla bu baax quoi def nañ lu bari ci man. Au-delà des adultes, des gamins de 10 à 17 ans sont formés dans ce centre, une manière de forger les jeunes dans ce poste très complexe. Khalifa Ababakar Fall dit avoir pensé à ce projet depuis sa grave blessure qui a mis un terme à sa carrière. De grands gardiens sont passés dans ce centre, à l'instar de Pape Demba Kamara de Sochaux, Djaliko Balidjaï de Reims et Pape Sidunjaï qui a récemment subi une formation complémentaire au sein du centre. Il est venu mener euh, euh, bi accident sur euh, la circulation ma demee la ma idée bi ñoo parce que nous avons eu bu pourquoi pas centre de formation mënul am quoi c'est en 2003. waaw jafe-jafe bi mooy ñàkk gëm nit ñi gëmuloon loolu quoi mais man gëmoon naa ko parce que depuis Kër Massar bon ay gardien yu mag daan fa ñëw ay ñoom Diaby Doucouré bi nekkoon AS Pikine ay Pape Demba Kamara bi nekk Sochaux ay ñoom Malick Kébé ñoom ñëpp danañ ñëw foofu di ñëw foofu si man di jël si xam-xam quoi mais man gëmu naa ni lii yàgg-yàgg dina mës a dem ko waaw loolu li ma ko may rek mooy gëm sam bopp rek liggéey gëm sam bopp liggéey xam ni Sénégal lépp loolu nekk te gëmoo sa bopp du dem man centre bi dama yàgg gëm ni lii war na mën a nekk. waaw créé centre de formation des gardiens 8 ak 12 gardiens dem ba benn moment ñu am ay 200 et quelques gardiens loolu loolu gëm-gëm la quoi. waaw championnat yi ak catégorie yëpp ah catégorie yëpp bon ñu ngi ci ci ci national 1 bi national 2 bi ligue 2 bi première division bi ñun ñoo ngi fépp quoi ñun ñun daal ñoo ngi fépp quoi ñu ngi ci ci sélection yi U17 i 20 local yi fu ne am nañ fa euh, gardien parce que ñu bëri jaar nañ fii waaw. waaw ñu ñu ñu ñu ñu ñu investir parce que affaire bi bon lépp lépp lu mu war a laaj ñu ngi ko jox ñu ngi yokk matériel yi yokk liggéey bi yokk équipement yi yor naa plus de quatre adjoints bon ñu ngi liggéey daal parce que ñu ngi avancé depuis deux ans si ginnaaw ak léegi nii affaire bi am na avancement boo xam ne ñu mën nañu ñu ngi koy gis quoi. objectif mooy. ñun balaa dara xew ñu nekk suñu premier sponsor quoi ñu nekk suñu sponsor bopp Kaana mooy tey jii Kaana bi maa ngi tudd sama bopp logo bi ñu ñoo ko defaral suñu bopp tey jii logo bi dem na ba ba Afrique yëpp foo dem da koy gis bon tout rek lañ am ñaari bitig yoo xam ne tey suñu marque équipement lañ fay jaay booy fay fréquenté bon booy doon xam ne dañ doon taxawal du chemin yi yëpp. ku ci ne am na fu mu dugal pour après après après football bi nga am loo def quoi. waaw balaa dara xew ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko féliciter quoi bon ci ci gëm-gëm bi mu gëm boppam wàcce boppam ñu liggéey ak centre bi ñu ne ma grand vraiment man dama la jox sama bopp ma ne ko amul benn problème yàlla baax na bon li ma ko waxoon am na lu mu ci jot a gis nee ko daal boo gëmee sa bopp liggéey niveau bi nga nekkoon di nga fa delluwaat te yàlla mi ngi ko wan parce que tout récemment tournoi bi mu góol ñii rek. bon mi ni ba nit ñi ñu ngi commencé waat di ko bàyyi xel mu gën a góorgóorlu gën a yokk xam ni mën na demaat ci niveau bi mu nekkoon quoi. waaw ay manquement mooy balaa dara xew Pape Sédou dafa commencé woon di perte morale moralement nekkatul woon parce que fi mu jóge ak fi mu wàcc bon moo taxoon amatul morale même daaw championnat bi mu def noonu ak ZEF ba nga xoolee xam ni kii bon ñàkk na ñàkk na entraînement ñàkk na morale mu ñun nag bi mu ñës ñun. moralement lañ ko commencé di di préparer bam mu ko yàlla def tay di mu amat tuuti confiance ba commencé di def ay exploit quoi. wa dama koy waxat rek gaay yi keroog wax naa ko si net bi ñu bari di ngagne ma leen man mo góol pour nawetaan mo góol pour nawetaan boko déggé nonu man noonu nga koy déggee dañuy pour góol yi nek top au niveau jar nawetaan dem championnat dem équipe nationale wala am contrat dem senen lool motax ñu ubi centre bi mais entraîné wuñu góol pour leen nawetaan pour ay nawetaan kese motax ñu entraîné góol. kon suba suba mën nañu arrêté parce que man jar naa si nawetaan man nawetaan moo tax ñëpp xam ma nawetaan yii moo ma lancé ba port gis ma jaraaf gis ma voilà nawetaan jaar-jaar la mais tout récemment rek maa ngi ciy wax nit ñi yaakaar ni damay minimiser ay nawetaan nawetaan ñun ñëpp si lañ jaar mais entraîné ñu góol pour nawetaan dañoo bëgg boy tey jii ñu ñu am ay gëm-gëm yor naa ay xale yu ndaw yoo xam ne ñu ngi si nawetaay fii ak deux ans ñu dégg leen feneen fu si ay nawtaan waaw booy yi mooy nawtaan yi moom mën naa ne góor yëpp samay góor lañu kade njaboot gi kade diisoo kade bokk jëm bon bon nu mu tudd sax yow de màgg baax koc bon amoo ñëpp samay góor lañu tey jii ñun suñu ferte mooy ñu ñëw toog si seetaan gis ñaar góor tase di def ay prep di def ay match yu baax di def ay arrêt yu baax loolu loolu suñu xol day dafay dafay sedd ba ne ko ba booy ku ci def parat bu baax wala nga def match bu baax sax soo paree fa la ngay ñëw si ñun jox ñu loxo ñun nuyu la encouragé la taal suñu moto ñibbi ñun ñun rek loolu la ñu am nit ñi yokk yokk Guédiawaye am Guédiawaye du ñu am problème mu góol Pikine du ñu am problème góol waaw Sénégal moom fi mu toll nii kenn waxtu dama am problème gardien ba ay Sëbi xotaan ay Bambilor ñëpp sant bi lañ nekk ñu gën a yokk liggéey bi autorités yi gën ñu jàppale te xam ni ñun tey jii dañu créer emploi ñu on a plus de deux cent et quelques gardiens. voilà boobu mën nañ dem di taxawaal wala ñu def leneen mais bu ñu ñëwee fii man ak Aliou ak Oulay ak Mbaye di dimbali jeunes yi c'est parce que bëgguñu taxawaal bi bëri moo tax ñu créé loolu te ñu ngi gis suñu bopp booy ñu booy ñu ngi gis seen bopp waaw autorité yi nag Guédiawaye nañ ñëw gestu centre bi xam ne centre bi du centre Guédiawaye kese Guédiawaye leen nekk nag mais centre bi Afrique moo ko moom Afrique parce que dem nañ ba tey jii centre bi gën a meilleur gardien d'Afrique voilà mooy Jali Kobali Ndiaye un centre de formation connu et reconnu partout au Sénégal qui est en train de nous sortir un grenier de portiers talentueux. Au moment où le football est devenu très adile au niveau national et international, le côte offre une possibilité aux jeunes de devenir de véritables joueurs de champ.